Euh, donc cette maison d'arrêt de correction pour ni euh, ni des prisonniers donc ils en ont profité Euh, ci euh, bi Sénégal amee ndam euh, donc xam naa ne ci fëlxoog réero bi rek la doon parce que ñii di pénitencier yi tamit xam naa ñëpp doon suivre lii di match bi fële ca Côte d'Ivoire. Mhm. ñoom nag profité nañ ci dama xamul nag ba xam aana ñoom danoo xamoon ne Sénégal day gagné lu ñu waajoon la am lu ñu waajul ndax fi mu ne nii ñu ne bëreet rek but yi dal rek ñu daal di ñoom yéeg mur bi rek am nu ñu def daal di daw. Euh, donc euh, nek na ben fin bu insolite en tout état de cause rek ana luñ ci mëna jangat rek modi euh mëna ñu delsi wat itam ci tout li nga xamantene moy condition de vie des détenus parce que euh, légui rek yang koy wax fi ci rebeus ñi di détenus yi donc produit yi ñi jaay ci biir ci biir kasso bi. Mhm. cher na cher bu nga xamantene ñom ci seen jëmmi bop ñu ci bëri donc dañoo bank seen loxo pour grève ne ñu ci jëndati. Mhm. li di wal visite sax ñu dem ba ci li nga xamantene moy wàllu grève donc bëgg nañ ko instauré foofu euh, mu di rek euh, li nga xamantene nguur gi war na ci profité ana euh, daa di xoolaat seen doxalin ak sen toogaay sen nekkin ci biir kasso bi naam ils ont fauté dañu enfreindre li nga xamantene moy justice bi ñu daal di leen teg à côté pour ay sanctions bis buñ ko purger ba paré rek dañuy wat ci li di société bi ñuy bayyi xel ci ñom parce que si ñun la ñu bokk quand même Euh, ku ci amul mbokk am nga ci doom wala nga am ci pap wala yaay bu nga xamante ne euh, wala tante wala mbokk bu la jege bu nga xamante ne euh, mu ngi ci biir jéel bi kon nañ leen di bàyyi xel bu baax ci biir loolu ci biir ci ñun la bokk donc seeni condition de vie seeni nekkin ñu war a lekk naan donc sangu ak lu mu munti doon rek war nañ ci bàyyi xel bu baax ci li nga xamante ne mooy doxalin ak tolluwaayu réew mi ànd. voilà alors monsieur Khouma donc un fait inédit comme ni ñu ko waxee.

et puis fooy denc ay nit du ñàkk ay caméras de surveillance mm-hmm. donc war nañu visualiser ces caméras là xool yeen conditions de l'unité. bu fekkee dafa am ay yu ñu si war a sanctionné ñu sanctionné leen mm-hmm. bu fekkee ne dafa am ay failles de sécurité par rapport ak ce ñu nekk bu boobaa itam autorité yi mais on a fait divers la rek jàll na trop facile mm-hmm. donc jàpp naa ne dina am au moins une enquête pour xool les conditions euh, si yenn conditions le détenu absolument et euh, la question de la condition de vie des détenus ci biir donc euh, récemment pas plus tard qu'hier on a vu que nous euh, na ñu relayé dans la presse ni que à Ziguinchor un détenu boo de ne de subir ay maltraitance bon s'il y a une chose boo tous les Sénégalais d'accord moi un homme venu ici ñuy doomu ici

da ngay dund loo xam ne boo génnee si biti dara dootu la jaaxal pour man ki nekk si kaso boo jour bi nga duggee lañ la war a préparer si naka ngay génnee si boo génnee naka nga war a intégre la société mais malheureusement la vérité est que aujourd'hui nos autorités amuñu volonté loolu améliorer wu. pourquoi parce que tey on ñu ngi wax ne président Macky Sall bi mu toogee ba léegi yaakaar naa benn maison d'arrêt la tabax mooy bi nekk bi Sébikotane

kon dama jàpp ne aujourd'hui li ñu war a def moy d'abord jot ñu d'abord les conditions de détention mais aussi ñu ubbi yenen kasso mais aussi xol ñu nekk ci kasso bi est-ce que nous ñu continuer rek tabax ay rebeus defa def ay deux mille trois personnes. Mm-hmm. ñuy dund lu mettre. est-ce que aujourd'hui ñu xol des peines alternatives c'est-à-dire pourquoi pas ñu c'est une proposition par exemple. Mm-hmm. dans le walo ñaata tool ñoo fa nekk. Mm-hmm. mais moi, am ay tool yo xam état du Sénégal moko mom mais ña fa nekk détenu di bay ñu léni fay parce que dans les grandes démocraties les détenus buñ la tëjee dañ lay liggéey looloo xamné après dañ lay fay aujourd'hui il y a des chinois au Sénégal yoo xam ne ce sont des détenus en Chine ñom dañuy dañu bëri ba pour def leen ci da fay dafay compliqué moo tax dañuy def peine peine alternative moy mooy dañ leen en coopération par exemple yobulen dans d'autres pays financer len ñu ñew Sénégal di liggéey di fay seeni peine ba seen peine mat liñ ci am état jël ko jox len ko peut-être amaguñ euh, moyen yoyu mhm. mais quand au Sénégal manké wul luñ mëna def lo xamné détenu au moins mhm. ci formation mais si liggéey lolé liggéey bo xamné da fay am d' intérêt public parce que bokk na ci tax ñu tëj leen loo xam ne bu ñu dañ leen koy mëna fay ñu mëna démarrer une chose mais wax dëgg yalla jël ay nit dajale dajal len ci bi Sébikotane ak ces conditions là mais nak ce qui est sûr moy

ce qu'on constate est que les autorités ne font aucun effort, pour, en tout cas, pour, pour améliorer une condition de vie et c'est vraiment désolant. D'accord. Alors, oui. Mhm. Mhm. grève aussi monsieur Xuma nañ ciy def attention parce que vous bu yàggul rek amoon na fi ben mutinerie mhm. parce que à euh, force nous continuer di def grève nii fait pour fipp boobu nak mën na indi li nga xamantene moy mooy mutinerie amoon na fi ba am euh, si sax ñun fi ñun fi ñun fi faat ana mhm. donc nañuy bayyi xel ñi nga xamantene noy gouvernant mhm. ci condition de vie rek dama koy dellu si waat si nga xamantene ne détenu d'accord alors euh, Daouda euh, donc détenu yi nga xamantene ni nii ñu rëcc ci mag bu mbuur ci jamono jo xamantene ni ñu ngi jubilé nek une occasion pour ñun ñu dellu si waat ci condition de vie yi nga xamantene ni mom moom la détenu yi nekkee ci biir kasso yi xam ak yeneen yeneen liñ jox je crois que doo mm-hmm. doo nga sëkk mais dama dama seetlu benn mbir Sénégal léegi nga gis nit ki ñu jàpp tëj ko ci kaso bi ñu fàttal la entre guillemets euh, à part say say mbokk ak say parents yi nga xamante ñooy dem di la di la seeti di xool ci la nga nekk di la indil loo xamante ne au moins sax woon ko mën a euh, jëfandikoo mais suñu autorités yi ñi ngi def ci ay ñi ngi inauguré ay terre ñi ngi inauguré ay liggéey ay infrastructure mais fàtte ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaso bi mm-hmm. fàtte ñi nga xamante ne ñoom d'abord avant tout ce sont des personnes d'abord ay nit lañ te ni ku nekk am nga àq ak yelleef am nga si say droit am nga tamit li nga xamante ni je crois que même sax su ma la même sax su ma privé sa liberté mhm. am nga tamit droit boo xamante ni je crois que comme toute personne am nga droit boo xam droit bu am solo boo xamante ni dana la ko war a mhm. sàmmal dana war a àq ki dana la war a euh, euh, jox cër mais euh, suñu nguur yi dañoo fàtte ni yaakaar naa ne nit ki moom boo ko tëjee au moins sax nga jox ko benn maanaam benn ay parents da ko da ko mën a seet di ko di ko jox li nga xamante moom la moom la war a jëfandikoo mais souvent euh, seeni parents yi bu la ñëwee sax di di leen seet du souvent ñu am problème wala am ay peine sax pour gis ñi nga xamante ñoom ñooy seen ay seen ay mbokk ñi nga xamante ñoo nekk si ay kaso bi mm-hmm. et puis monsieur monsieur Xom wax na ko léegi euh, prisonnier amul amul fii sax tëb ci mbir bi te amul ku ko jàppale nañ xool la moo nekk ci biir fi nga xamante moom mooy ci biir kii prisonniers ñay pourquoi mhm. pas ñuy génn facilement di rëcc noonu d'accord Aïssatou ban appréciation nga am par rapport ak li nga xamante ne nii détenu yi ñu ngi koy dund ci biir kaso yi euh, waaw ana dafa nekk am fay boo xam te ni c'est inédit parce que profité ci effort yi matt Sénégal bi daal di euh, daal di daw loolu mën nañu xool lan moo ko indi d'abord est-ce mhm. que c'est pas un manque de vigilance de la part des des pénitenciers mhm. Benen bi li nga la condition de détention bi dafa xawa a des ci Sénégal parce que mhm. comme le ki kii waxee nit ki ñoom japp nañ ni nit ki bo duggé kasso la mhm. alors que c'est pas euh, def aussi ils ont leur droit de ci droit euh, conditions pour dinañ dinañ préparer ay plan d'évasion benen bu moy euh, prison yi Sénégal yi dafa dafa dafa bariwul comme ni ko kii waxee mm-hmm. en plus seen seen condition de détention c'est c'est c'est c'est très malheureux malheureux bi mooy ma damay dégg souvent ñu naan paquetage dafa am ci biir prison yi mm-hmm. te nit mala sax bëggul paquetage waxtu malaan nit mm-hmm. mala bëggul sax paquetage waxtu malaan nit nañ euh, jéem a xoolaat condition yooyu euh, pour que prochaine fois lii bañ a am ñu xool tamit li euh, nan la ko mën tuddé sax tout euh, temps voilà bi <laughs> may condition parce que condition mm-hmm. condition yi wax nañ ko fi ko fi à la fin kenn du gis une mm-hmm. solution mm-hmm. té répétition bi euh, ki di am évasion bi di am ki wax un moment dañuy ba dañuy wu nga frustration bobu dina bu

vécu réel wala bokk vécu quotidien bi nga xamante ne nii ci prisonniers nous ñu koy dund ci biir kasso yi ndax lolu japon ni euh, quelque part mën nañ ko des discrimination. si discrimination la mais bon. dans tous les pays ça existe quand même. Mm-hmm. mais je voulais juste dire que bokku na ci li tax. autorités yi ñu effort. effort absolument améliorer. en tout mm-hmm. les conditions de vie des détenus. Mm-hmm. bu fekkone dañ wax ni ku ñëw par ordre d'arrivée n'est la néeg bi bu fessé bo ñëwee. ak noo ñëwé rek noonu lay ci juk

le mandat de dépôt parce que dans le code pénal les articles 50 à 100 si le procureur de viser dans son réquisitoire mm-hmm. demander un mandat de dépôt le juge d'instruction n'a aucun choix que de mettre un mandat mettre mandat de dépôt mm-hmm. et je pense que Lolo, lu devons réforme Sénégal parce que aussi juge d'instruction il n'y a rien qui relie au parquet mm-hmm. parquet y a une instruction instructions ministère si ministère mais le juge d'instruction moo war a am liberté dossier bu ñu ko jox moom moo les charges est-ce que doy na wala est-ce que doyul pour def la mandat de dépôt mhm. mais juge d'instruction aussi war na am la liberté xool ne même charge yi doy na mais mu ne am nga ce qu'on appelle euh, représentativité garantie yu ni mel bu garaawut mu day may euh, liberté provisoire wala en tout cas mu mu mu la nga dem muy continuer enquête am mais yenn peine a mais yenn qui yi bu ko procureur visé amul ben choix hum. da fay def daf lay def directement mandat de dépôt donc lima magistrats mo wara Sénégal hum. actuellement au moins je pense euh, je yu bari wax nañ ko hum. dans les démocraties y am ce qu'on appelle un juge des libertés c'est-à-dire quand le procureur aujourd'hui demande un mandat de dépôt juge d'instruction wax nañ la def mandat de dépôt nga am droit def recours le juge des libertés ne ko man amna euh, ay garantie yo xamné buñ ma wowe dina ñew mais aujourd'hui juge d'instruction mën na la accorder une liberté provisoire par exemple mhm. mais le parquet a la possibilité de faire recours bu ko défé automatiquement tu restes en prison et yow amo droit faire recours leen rek nga mën moy dem chambre d'accusation bu féké dafa wara dem ci juge d'instruction lool rek nga mën mais buñ la tëjee liberté liberté provisoire procureur bu faire appel yow da ngay tëddaat am nga droit nga euh, procureur def appel chambre d'accusation pour procureur am na droit la cour suprême c'est comme le cas de Aliou par exemple yana y a mm-hmm. marre pour mm-hmm. nañ ko procureur def appel mu sem dem chambre d'accusation ñu mayat ko dëgg mm-hmm. procureur introduiraat appel au niveau de la cour suprême pour dire que procureur dafa am doole bo xam la bëggee tëj mais lolu ce sont des cas politiques mais de façon générale facilité bi jox nit mandat dafa yàgg ba paré Sénégal ngay gis ñu jàpp nit peut-être que 5 ans, 6 ans, à deux peut que 3 mois. Au lieu de 6 ans, à traîner le défaut d'Ara. Après, on a gagné ce ligue, ça derrière, et à Amul Dara, l'humidien, tu as le coup d'Amul. Tu perdre 5 années de ta vie. Mais dans les démocraties, aux États-Unis, par exemple, c'est une grande démocratie. Heure mhm. judiciaire de Fayam. C'est-à-dire, de n'y être ni si heure judiciaire. L'autre monde n'est pas parce que juge n'y là sur des faits, les états À partir des enquêtes. L'ibéné est fait que vous. L'inconjure a élément à juger mais dañu war def bu fekkee erreur judiciaire dafa am mhm. mais que l'état état répare parce que c'est l'état qui exécute les politiques pénales donc lolu dama japp ne lu wara ñëk a Sénégal mais tej ni tej ñi nek ci kasso bi yëpp li ma gëm cinquante pour leen amone ay juges yu doy ñu juger leen parce que dañ leen di bàyyi mais malheureusement aujourd'hui ñu bari ndeysaan ñi ngi si kaso yi amuñu lu ñu avocat lu jëlé avocat mhm. benen moy man gis naa Sénégal koo xam ne dañ war na dem tribunal dossier dafa réer wala ñu ne non dossier bi ñu dem war la àtte Kaolack ñu ne non dossier bi mu ngi Tamba parce que amoo lo jëlé avocat amoo kenn ko mëna layal amna ñu nek prison yo xam buñu bu amon avocat libéré nañ leen bu yag mm-hmm. parce que amna ay ay charge yo xam buñu bu ñu la ko toppee six mois buñu la jugé wul libération dafa war a nekk d'office lañ la wala a libéré mais amna na xamné xamuñu lool donc je pense que yoyu ay yëf la yoo xam ne. Mm-hmm. tax li di tax nit ñi di wax que justice bi doxul du question politique rek. Mm-hmm. justice bi de façon générale. dañ ko wara réformer. ba nit ku ne justice à sa justice à bob c'est-à-dire aujourd'hui Sénégal boo am boo jotee ko am doole mais boo nekkee sa xarit wala sa mbokk il va dire que bon yaa ngi dem justice mais doo fa am dëgg donc ce sont des choses yu war a am ba nit ku sentir ne man justice moy sama cëslaay li mujj sunna togné mo démé na am dëgg mais benen moy ma xam buñ bu ñu may tëjit dañ may tëj ci ay faits yu réel yu ma def mais pas tejj ma génn ma après ne ma defal dara. Mhm. lo je pense que ce sont des choses. est-ce que donc vous êtes d'accord pour une. bàyyi bàyyi bàyyi kon monsieur Khouma vous êtes d'accord que au Sénégal il y a une justice à double vitesse. mais loolu. ni ko mais loolu mais loolu dafa am. Mm. parce que amna ño xamné Sénégal buñ ñu yobbo seen dossier mais gis nga ni accéléré je ne parle pas des acteurs politiques là ça c'est un autre débat mhm. mais les citoyens lambda bu ñu demee ci justice si tu n'as pas les moyens pour nga génn ci facilement dafa yomb aujourd'hui bëri na ay faits divers yu am Sénégal ñoo xam ne dañuy wax ay doomi kilifa ñoo ko def mhm. bu doon doomi baadoola actuellement mu ngi ci kaso c'est ça la vérité dëgg la nit ñëpp yemuñu ay privilèges mën na am mais dama jàpp na ci wàllu yoon foofu rek mooy fi ñuy wax mbaxana c'est-à-dire amul ministre amul serigne bi amul le mhm. citoyen lambda. Mhm. bu ñu fa démé ñu ñëpp dañu wara japp né fi fii yoon mo fi am pour le Sénégal. et puis ñu ngi au-dessus de la loi comme on dit. mais loolu la wax. Mhm. xam nga constitution dafa ko bañ sa bané l'État et les citoyens sont soumis à la justice au soumis au aux lois État ak limi am doole ak citoyen bi. ñoo yëm ci loi maintenant nak dafa am arbitre bu ko constitution un arbitre moy la justice impartiale et indépendante. justice warul am par parloo. Mhm. ba pare dafa war a moom boppam. Mhm. amul benn moyen de pression bu ñu war a mën a teg justice pour mu dogal loo xam ne du dëgg. waxuma ñi ñuy libéré waruñu leen a libéré nga nekk doomu baadoola nga nekk doomu riche nga nekk borom daraja amoo daraja nga nekk baadoola mën nga dem ñu libere la mën nga dañu jàppale mais dama ne la constat est Sénégal bu fekkee borom daraja nga. Mhm. wala ngay doomi borom daraja boo demee si justice si lañ gën a am yaakaar nga rëcc ko boo dee baadoola.

nga yaakaar man su day dee mbokk kooku bu affaire justice amé jëm ci onum politique damay tok croiser les bras dama naan voilà c'est l'occasion pour man ma venger wu et yooyu dafa beuri Sénégal mm-hmm. dafa beuri ñu nek ci kaso yo xamné ñepp ñëpp ni nañ leen fa bayyi moy ñak ay moyens wax dëgg yàlla réforme nañ code de procédure pénale ba nit ku ne da nga am droit am avocat mm-hmm. si yoon benn nit waruñu ko atté wala benn nit waru nekk si loxoy yoon te amul avocat mm-hmm. l'état doit se permettre d'avoir les moyens nécessaires pour nga xam ne ki en prison chaque jour il war être en contact permanent avec un avocat soit mu am moyen moyens ko wala ñu commettre ko d'office c'est loolu mu ngi ci code bi donc dama jàpp ne yooyu ay choses la mm-hmm. on va continuer à dire que la justice du Sénégal n'est pas indépendante et ça va être très mal. parce que justice de joxe dëgg nit ñi ne du parce que tout simplement perception de am mm-hmm. solo perception de nit ñi am justice Sénégal est indépendante c'est mm-hmm. moo la décision bu mu jël mën jël 1000 décisions mais bu dee deux dossiers politiques on va dire que n'est pas indépendante loolu nag dafa am lu ko indi si souf la démarré yëg ci kaw te yooyu ay ay imperfections wara corriger war a tout si li ma ko bëggoon a poser question ci leen ñëw légui muy les avocats commis d'office est-ce que am na ñoo comme li nga wax sank am na ñoo xamante dañuy nekk en prison te amuñu moyen pour jël avocat est-ce que Sénégal am na benn comité boo xamante ne dafay ëmb ñi euh, ñi ñuy woowee les avocats commis d'office pour ñu ñu ñu ñu xeexal ñi nga xamante ne amuñu bon ce que xam sais, c'est bu dañ lay déglu les mhm. police la gendarmerie devant le procureur ils amuñu sañ-sañ sax déglu avocat. C'est ce Sénégal da ngay gis dem si mhm. PV ba mu procès mu ne biñ may déglu avocat c'est qu'on appelle vice de procédure automatiquement juge rappelez-vous du cas John Seck mhm lan mo tax ñu bayiko parce que biñ koy déglu avocat am teewut. Mhm. ñu dem def instruction ba war ñu juge bi xamné avocat am teewut. Mhm. automatiquement day dindi day day day day day kase day day day loolu la ñuy wax vice de forme vice de procédure. day arrêter donc euh, amna bu féké dañ lay déglu mu am même bu féké da nga nek ñu war la àtte tam da nga war am un avocat ben juge waru nangu ñuy àtte nit te amul avocat parce que ñun ñu ëpp ci réew mi jangu ñu

dem justice ñu jox la tort mm-hmm. mën nga ñak nek ci dëgg mm-hmm. dem justice jox la dëgg mm-hmm. lool nak dafa am ño xamné ay avocat lañ dañoo wara a di teew à chaque fois bu procédé am mais nak je ne suis pas sûr au Sénégal si am na ñoo xam ne rek la ñuy parce que comme ni ma ko wax légui bari na ñoo xamné ne seeni procédure likay koy arrêté dañuy dem ba procès ñu ne leen bi ñu leen déglu amul avocat mais loolu dama japp ne police gendarmerie procureur warul nam déglu kenn avocat teewut. mais malheureusement Sénégal ñëpp amuñu amuñu moyen jël avocat mais aussi l'État aussi góobu na def na les moyens nécessaires ba ku ñu wara déglu rek nga am avocat de fils. Mhm. alors mi ngi euh leer na donc on va on va on va rapidement boucler ce chapitre là euh, jàll ci. ci euh, beneen ponk muy suñu ponk bu njëkk sax d'ailleurs donc comme